xam ngeen ne màggal gi day événement bu mag population yu bëri di ñëw ci Touba loolu moo tax avant màggal gi di ñëw ci réunion yi nga xam ne moom la ñuy def muy CDD muy CRD mais également réunion nationale bi ministère de la santé mobilisé wu na ci faj gi tey nag dañu daje fii nga xam ne fi le service national éducation information def dalam ma profité ci occasion bi sant la comité d'organisation de Touba Serigne Ousmane Mbacké ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko yor ci li ñu jàppale ba ñu mën a am fii fu ñu mën a teg suñuy tànk loolu moo tax tey ñu teew fii service yi nga xam ne nag ñoo gën a impliqué wu ci organisation màggal gi tey ñoo fi teew muy service national hygiène ak capitaine Fallou Sarr xam nga service d'hygiène ñoom avant màggal gi ñëw nañu sëñ Fallou bu jëlee parole dana ci gën a ñëw ci li leer fii tamit am na fi service SAMU national nga xam ne ñoom it bu docteur Wade jëlee parole léegi dana ko gën a leeral ñoom ñooy saytu ambulance yooyu nga xam ne ñooy faj doomu aadama yi. ak ñun suñu service nga xam ne depuis cinq jours tamit ñi ngi fii di def ay action de sensibilisation communautaire Birahim Thiam dina ci dellu si léegi ci résumé loolu moo waral tey point de presse bi ñu sant journalistes yi nga xam ne ñoo fi teew yéen ñëpp. madame la ministre jox nañu ndigal pour que ñu gën a continuer ci sensibilisation bi danañ dugg ci kër yi dem ci waañ yi bu ñu jógee fii léegi dañu war a yóbbu produit yi nga xam ne moom lañ indil comité d'organisation bi ci jumaa ji ak résidence li wër Touba moom ci ak ci kër yëpp yóbbu nañ fa lépp li nga xam ne dana dimbale jigéen ñi ci waañ yi ak muy gel yi muy euh, li ñuy raxase loxo yi madaar yeeg saabu geeg yëpp loolu service bi vraiment góor góorgóorlu na ci. dañuy daal di ñëw indi ko ci màggal bi tëgg wanteer euh, wàññi prix yi waaye nuy wax rek population yi nañu xool bu baax li ñuy jënd su mën a jàng na àndal bu ndoomam su mën a jàng wala bu jëndee bu demee ci ga euh, ñi màggal si mu woon leen ndax bari na lu ñu jàpp diggante ñeenti fan ñi ñeenti fan ñi ëpp na ñaar fukki bërigo ci wàllu ñam yooyu te euh, am na ci yu bari yoo xam ni non seulement yàqu na mais boo ko lekkee tooke benn bànqaas la ci liggéey bi euh, saytu ñam euh, yooyu ñuy jaay ci marché am na beneen bànqaas aussi boo xam ne mooy càmbar ndox mi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ndax ndox dañ koy yittewoo fu toll mbooloo dañ yittewoo ndox te bu baree rek euh, ak màggal gi ni mu demee nit ñi dañuy daal di commencé dañ ciy thésauriser maanaam dañuy ragal mu jeex ba denc mu ne dañ ko nag dañ ko ni dencee moo tax moom it ñu am message yu baax yu ciy def di dem ci château d'eau yi def ay prélèvement di dugg ci kër yi di def ay prélèvement yi ak def analyse yi def facteurs yooyu ñu xool ba xam amul doomu jàngoro boo xam ne lëkkaloo na ak santé ay ay ay yooyu mais aussi di xool euh, yeneen euh, paramètres yi nga xam ne ci ndox bu nekkee ma ne soo ko jëfandikoo waaye bu nekk la daan loolu ci ci ndox ci ak it xool yi nga xam ne état bi indi na jox ko comité bi muy séddale ndox di yóbbu fa ndox amul euh, mbaa boog ñi nga xam ne dañuy fu ñu def ñu wér leen kam saytu nañu leen ba xam bi ñu ñëwee bi ñu daataan tàmbali liggéey ndax war nañoo man a def liggéey boobu wala des am na ci lu bariwul waaye am na ci wàññi yoo xam ne ba suubo euh, ci boog fànn aussi ku ne ndox mu set boo ko jëfandikoo ba pare ndox mu tilim lay daal di doon mu utilisé moo xam bi ñu raxasin bi la moo xam ba ca euh, euh, la maanaam oto man yi tamit état bi jox na ko oto vidange yi jox na ci comité bi ab lim bi

jox leen feu vert tàmbali nañ liggéey bi waaye ñu ngi leen di topp pour ñu ko yóbbu ba ñu leen ko yóbbuloo ndax léeg am ñoo xam ne aussi dañuy duy ko mu fees duñ ko duñ ko baax duñ ko ubboon àgg dañuy bàyyi muy seef ba nga xam ni bu ñuy àgg fa ñuy jëm daanaka xaaj ko duñ fa yàgg ndax dañuy bëgg di demal waa demal dikk bi euh, rotation yu bari loolu moo tax comme ñu ngi leen di topp am na aussi benn équipe boo xam ne moom jigéen ñi la ay agent di seen yi jigéen la ñu ñu ngi dugg ci waañ yi euh, di waxtaan ak euh, góor yi ak jigéen ñi ndax waañ yi màggal moom du yóbbaale nañu euh, message boo xam ni pour jàppale leen ñoom ci naka la ñuy gën a farloo ci ñam yi surtout li nga xam ne tàng duñ ko togg lu mel ne salade ak yéen koy gunge wala boog xeetu naan yi nga xam ne ay jus yu ñuy defal suñu bopp yooyu tamit kii na waaye nag leen sax dama ko fàtte wax léegi xëy na yéen ci yéen a am chance jot ko agent yi jigéen yi agent yi jigéen yooyu ci ndimbalal UNICEF service national de l'hygiène dafay euh, euh, am activité bu muy def euh, boo xam ni ci yeete la ak ànd ko nit ñi surtout moom la ñu tudd la gestion hygiénique des marcheries maanaam jigéen ñi gis mbaax am na ay ay ay ay ay ay jumtuwaay yu bare bare bare yoo xam ne joxaale woon nañu ko xale jigéen yooyu yu baale nañ ko ci waañ yi maire yi ñu fi fekk waxtaan ak ñoom jox leen ko bu ko defee ñu jébbal ko ñoom ñu mën ko séddale wax nañ koy utiliser bu ñu noppee fekk weer ñaari weer ñu dellu si laaj leen seen xalaat ba xam jumtuwaay yooyu nga xam si moom moom moom moom lañ leen jox naka lañ ko gisee rek bu ko defee indi sax mën a xam ndax dana lu mu def euh, suite la suite en waaye loolu bokk na ci ren innovation yi bokk na aussi ci ndox mi euh, dama wax léegi jus de qualité boobu waaye am nañu benn potal la pour UNICEF jox boo xam ne moom moo nu mën a permettre nuy xool méthodes yi ne ci ndox mi kooku c'est une première aussi ren noo ngi koy def euh, échantillon na bu ñu jël daañu xool paramètres bactériologiques daañu xool turbidité daañu xool kii mais aussi également daañu xool la teneur en métaux lourds bi ci nekk euh, euh, heureusement gisaguñu vraiment euh, mu génn say normes yi nga xam ne moom la organisation mondiale de la santé toléré pour nous ci gàttal daal loolu mooy li nga xam ni def nañ ko dugg nañ ci kër yi aussi. waxtaan nañu ak ak ak euh, borom kër yu góor yi ak borom kër yu jigéen yi euh, comme ni ngeen ko gisee mottu leen te lay doon service national de l'hygiène service national de l'éducation et de l'information pour la santé yooyu yëpp mooy waajal bi ministère de la santé de l'action sociale waajal màggal gi rek pour kenn ku nekk balaa docteur a am ci yoon la nga mënal defal sa bop man koo defal sa njaboot nga defal ko sa bopp defal ko sa njaboot fa nga toll bu ko defee bu fukk waroon na daanu feebar xëy na ñettay bu ñu demee docteur am jot bu leen mën a jëlee yi nu mën a jëlee loolu ci tënk mooy li ma bëggoon a wax rek di yeesalaat sama ngërëm ak ñi ak euh, euh, ngërëm cant euh, ki nga xam ne moo fi dajale muy directeur Mamadou Lamine Bara Gaye bi jiite service national d' éducation pour la santé national de l'hygiène ak ci turu médecin chef de région Mamadou Ndiaye mi nga xam ne aussi maa ko fi toogal maa ko fi teewal ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko wax mu jot lu ñu ngërëm loolu mu àgg ma ca ba